waaw waaw waaw ndeysaan lii mooy senegaal bàyyi nit ñi reyante di dee ak rey lii mooy Sénégal lii mooy lii lii mooy diine senegaal lii mooy xew léegi diine ju xew la bàyyi xal yi génn di tañ mën ci dara bàyyi xal yi génn di rey ñu di leen rey tañ man ci dara lii mooy diine senegaal ndeysaan lii di dëgër na lii mooy Sénégal Sénégal lii mooy Sénégal lii mooy Sénégal ooy lii mooy Sénégal isaan ñoom seetaan gasale nañ ñoom seetaan nañ ngi dee ñoom seetaan nañ ngi leen di lii mooy Sénégalu lii mooy Sénégal lii mooy Sénégalo lii mooy Sénégal réewum Sénégal kompolo nañ réewum Sénégal koote nañ réewum Sénégal sëgg nañ réewum Sénégal seetaan nañ lii mooy Sénégaluy lii mooy Sénégal lii mooy Sénégaluy lii mooy Sénégal seetaan nañu ndeysaan négociation Sénégal ay nax la négociation Sénégal ay wor la négociation Sénégal ay nax la négociation Sénégal ay wor la wor la war la araam na négociation Sénégal araam na bu ko kenn nangu négociation Sénégal ay nax la ay war la ndeysaan négociation Sénégal ooy négociation Sénégal ay nax laaw ndeysaan di ngeen sama kaset bee dagg nañ ko man clients yi vraiment sonal nañ ma waay waay clients yi sonal te duñu dem fenn duñu nangoo fay looloo ci ne dañ may dagg te duñu nangoo fay duñu dem fenn waaye man sonn naa client yi loo leen wax jee seer na gone yi jóge Brésil loo leen wax seer na mu xamaguñu pay loo leen wax seer na vraiment sonal nañ ma dañ leen di jox sama numéro rek ñu di ma woo te looleen leen wax seer na te man dama leen di wàññil am naa ci ñoom yërmaane samay doom ak samay sët lañ te li ma leen di wax kat fu mu mën a dem du ko am fu mën a dem du ko am waaye nag amul problème dañ yàq sama entraînement bi dañuy kar karee rek négociation Sénégal bi ay naxlaaw ay leen ko négociation Sénégal ay nax la ay wor la kompaloo la ab ray la ab tëj la ab néeg ay wa ku leen ko woo rey la. sunu bës TV tëj la rey la. seeyal la. négociation Sénégal négociation Sénégal bu leen ko nangoo nangooy ay warlaaw ab naxlaaw ak deelaaw négociation Sénégal bu leen ko déglooy ku mën a doon bu leen ko déglooy ndeysaan négociation Sénégal comme mën a doon bu leen ko déglu xam nga ne Sénégal lii ele yi jóg nañ gaa yaa ngi war a jógaat suba loolu ba kañ est-ce que gaa yi duñ jóg ci ngoon gi tax jekkali mbir mi loolu ba kañ lépp ele yëpp jóg nañ dëkk yëpp jóg nañ lii ñaaw dafa ñaaw sax nag lii nag dafa ñaaw lii amu ci mel réew xaw a bëgg a dee la wéqu dañuy bëgg a dee danañ wéqu négociation ku leen ko lank leen ku leen ko wax luy komplo ku leen ko wax rek complot kat la ku leen ko wax ragal leen ko négociation Sénégal lank nañoo lank nañoo dañuy xeex xeex leen xeex leen moom seen bopp xeex leen bu la bàyyi mayee ñax la bu la ndey mayee ñax la loolu liggéey yaay borom ku leen woo complot da leen da leen ba da leen a ku leen woo négociation daa bëgg ngeen dee daa bëgg ñu continuer di leen rey daa bëgg ñu jekkili leen daa bëgg ñu tëj leen lank leen ba wut leen ku leen lank rek ku leen woo ne ko. Sunubuzz TV ku leen ko déglu góor gi yooru na góor gi yooru na.